ربي أحمد على محمد عليه خير الصلوات سمدي man la sëñ Ahmadou Sidi Samb euh, bokk ci direction générale bu Hizbut Tarqiyyah ñëwoon teewal fi sëñ Youssou Diop bu Hizbut Tarqiyyah ci bis bu mag bi nga xamante ne bii suñu mbokki taalib waa wilaya ñoo ngi koy def ci seen fukkeelu congrès bi nga xamante ne bii euh, moom lañ doon amal tey bis bi rëy na rëyaay boo xam ne euh, wax ci sax jafe na ndax euh, li tax wax ci jafe na boo xoolee bi fi mu tàmbalee ba fi mu agsi mooy lay wane ne tànkam lam amul tànk ginnaaw te loolu feeñ na ci bis bi ci vision bi nga xamante ni bi sëñ Cheikh Mouhamadou Mbacke Gaynde Fatma amoon na ko ci taalibe sëñ Tuubaa yi ndax tey jii booy xool amul benn couche ci yoonu murit boo xam ne teewoo fi ñoom nag bis bi jegesee Euh, ci ndigal sëñ Ousmane Mbacke ñëw nañ daara ja gisante sëñ Yuusu ngir ñu ànd bis bi kon loolu muy loo xamante ni bi wax dëgg yàlla amuñu seen fay ndax ku am sa bis ñëw yëgal ñu ko kon day mel ni fonk nga nu yëg nu looloo tax sëñ Yuusu it joxe woon ndigal moom sax moo buggoon ñëw waaye yàlla dafa dogal tey fekk ko ci biir réew mi moo tax mu yebal ñu maan ak mag magi waa Daara Touba yëpp pour ñu ñëw teewal fi Hizbut Tarqiyyah ànd ak yéen bis bi ba lépp lu fuy jógee ci loo xamante ni bii lu ñu war a jëmale yoon mu kanam la buñ ko non nosee rek ñëpp ñu ànd maag xam ne Sëñ Tuubaa moom amul frontière diggante wilaya ak isparxe benn mbooloo la ndax lépp liggéey Sëñ Tuubaa rek mën a jóg doxalin benn la ndax keroog rek biñ dikkee ci daara ja sëñ Youssou wax na leen ne moom rek la bi nga xamante ne bii saa su ne sëñ Mouhamadou Mountakha buy digle lu ñëpp bokk moom day jaar ci turam ne ko waa wilaya kon day mel ni sëñ sëñ bi moo nu boole boole googu nag seen toile yi ñaan mu téyel ñu ko ndax eh, gis nañ ni ak yokkute am na ko ci mboolem loo xamante ne bii ànd nañ ko jëfal ko sëriñ bi ndax saa yu ndigal ñëwee gis nañ ni buñ ko ànd waa wilaaya day rafet gën a moxtaare gën a ci liggéey ndax kenn ku ne am nga loo mën loo xam ne sa morom mënu ko waaye suñu boolee suñu doole rek sëñ bi day daal di ñëw def ko muy dooleem te su boobaa li sëñ bëgg maam eh, eh, day kon daal ak cant bu mag lañu am ci bis bi fekke ko ndax dool nañu ak xam ci loo xamante ni bi xamuñu ko woon te te àdduna moom saa yoo xëy rek am na loo xamante ni bi war ngaa doole ko ci ci xam kon ñu ngi sant seen daaw bu baax ci teewaay bi te fas ko yéene ànd ak yéen rek saa yu yu mel ni su amatee rek ñu xam ne Hizbut Tarqiyyah ak Wilaya benn mbooloo la sant sëñ Ousmane bu baax nag ci taxawaayam ndax waxtu ne dañu ànd liggéeyal seen Tuubaa bi muy rafet moom daal moo doon kàddu yi kàddu yi moom kàddu cant rek la ak xam ne lii la Sëñ Tuubaa bëgg mooy mboole mboole yëpp mboole yëpp ànd maa sa doon benn kenn ku ne loo xewle ñu ñëw ànd ko ak sa moroom loolu yaakaar naa su nga dee def li sëñ bëgg uh, saa su ne dana am ñu ngi sant nag bu baax waa wilaya ndax ñu nag ñoom suñu diggante léegi amatul frontière léegi benn daayira la kon lii ñuy ñëwee fii ñuy bu ñu amatee bis ñoom it noonu lay ñëwee parce que yéen ànd rek boo ci kanam borom liggéey bi